jëfandikoo bus tata yi jamono yi ñu toll eh, dinañ gën a xaarandi gannaaw ba ñu décrété ab grève ñett fan dawalkatu tata yi ak yi waroon tàmbaliwaat tey seen liggéey ci alxames gi waaye nag la bett passager yi mooy ni gisuñu benn tata buy daw fii ci terminus Wakam bi ñu nemmeeku ay tata yu taxaw benn si ñoom yabul ña koy jëfandikoo di ko naqarlu. mu metti man tamit nag parce que ñoom ñun dañu si seet ñun néew di doole yi mënuñu tout le temps di ay taxi affaire day metti si ñun. mu ngi nii ñu ngi en retard war a jàngi gisuñu bis gisuñu dara. grève liggéeykatu tata yi wéyandi ba tey mu ngi gën di jur njàkkare ci askan wi ñoom ñi le di jànkonteel ay jafe-jafe di métitlu rek yokkutee paas gi ci ñuy dawal njaga njaay yi. ñoom njaga njaay yi dañoo yokk seen paas voilà loolu lay problème bi parce que ñoom dañuy jéem a profité ndax grève bi voilà c'est la le problème loolu tax ñu ci dañu mujj obligé rek toog xaar 218 bi ñëw ñu jéem koo jël wala soit ñu jël ci subaak léegi nag ñu gis client yu bëri taxaw ci arrêt bus yi waaye benn tata liggéeyul loolu sax waral askan wi di sàkku ci jëwri ñi ngànk wàllum dem geek dikk gi ngir ñu saafara ñàkk déggoo gi am ci diggante liggéeykatu bus tata yi ak association bi ëmb wàllu wi. comme ñoom li ñuy grève ñu xool li ci nga xamante ni si ni moo ci yenu maanaa ñu accepté leen ko li nga xamante ni si ni moo ci yenuwul maanaa ñu négocier ko ak ñoom parce ñu aidé gars ay mag yoo xamante ni na si ñoo xam ne seen demewul noon foo daan paas 300 nga fay paas téeméer wala 700 tamit. dem gi ak dikk gi ci bis tata yi sooxe na bu baax fan yi bu ñu sukkandikoo ci ñu koy jëfandikoo nga xam ne ñoo ci gën a laale ba tax na ñuy ñaan nguur gi ngir mu jël ay responsabilités waaye itam àddu ci lu jëm si ñu jox gëdd liggéeykatu tata yi.